alors euh, mu di euh, reportage bu am solo paate je pense que ku ko xool rek euh, dina attirer sa attention ndax moom mi léegi nga xamante ni moo di Ahmed Daaf mu ngi amal lu am solo. exactement donc déjà am na benn wax bu mu wax ci biir vidéo bi qu'est-ce que ne alors ñii jàppale leen jarul lu extraordinaire jarul mm-hmm. donc maanaam nga am quelque chose de grand de grandiose pour nga mën leen ca taxaw donc déjà ça veut dire tout simplement que donc il faut déjà ñi nga xamee ne que ñu ngi dund ci yenn ci ay communes ci ay quartiers yu demee noonu. alors kenn ku ci nekk bu jéemee xool moom comment est-ce qu'il peut faire pour mën a taxaw sa askan wi si façon bi nga xamee moom mooy bi mu jàpp ne euh, nécessité la parce que donc souvent c'est des détails yu nekk ci sa ci sa environnement mm-hmm. yow doo ci faral di bàyyi xel mais il suffit que nga xool am benn observation bu bu objectif rek donc di nga xam ne que lii boo ko defee dina am impact mm-hmm. quoi mm-hmm. alors xamet bu ñu bu ñu mënee ñëw déjà automatiquement ci euh, alors le concept delloo si comment que ça t'est lu tax nga xëy rek alors taxaw ne da ngay ubbi centre bii nii et kër gi nga xamee que moom nga leen moom nga leen moom nga leen def naka la demee acquisition bi sa kër la dañ la ko àll dañ la ko may c'est comment. merci beaucoup Pathé. Mhm. Euh, bon delloo si pour dire vrai bon c'est quelque chose qui est venu naturellement. Mhm. Euh, bon euh, assister les personnes souffrant de troubles euh, dafa nekk loo xam ne bon depuis xale la. ma màggaale ko ba mu ba ba nga xam ne peut-être tey yàlla def nii mu nekkoon projet boo xam ne rêve mhm. euh, man c'était pas uniquement ñi am feebaru xel c'était surtout ñëpp ñoo xam ne dañoo am jafe-jafe comme je dis souvent rawatina maire yi doon toog si mbedd bi ak seen doom di yalwaan mais ba demee à moment j'ai vu que ni parmi cette couche là parmi la population sénégalaise les personnes souffrant de troubles mentaux c'est la couche la plus ñoom ñoo gën a vulnérable ñoom ñoo gën a Euh, en da de ñoom su ma waxee ñi am feebar xel aussi tamit yaa ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo sineebar mhm. loolu sax moo tax man sama jàng série S laa def ba terminal ma viré dem defi ji L uniquement pour def droit am mhm. jamono mooy defi ji droit pour mën a taxaw mën a a gérer mën a tax pour mën a xeexale seen pour ñu jox la seen ax ak seen yelef mhm. euh, loolu ndem mu ma si yóbbu ba yàlla def ni tamit il fut un moment boo xam ne tamit euh, avant demoon si mbedd bi la may leen ñu lekk toppatoo waxtaan yooyu noonu il fii un moment boo xam ne la santé c'était une obligation pour que mu mu tijjee ko. Mhm. bi nga xam ne euh, àdduna ñëpp tout le monde di de nekk di uf ku nekk di uf say njaboot. Mhm. man parmi yow sama. période Covid bi parmi Covid bi. man nag période sama njaboot mooy ñi nga xam ne dañoo ne ci mbedd bi ce sont les malades mentaux la mosopathie errant beneen bi mooy jàngoro bi ñëw taxaw ñu ne mbalit lay bañ salte lay bañ ku nekk di aar sa bopp ku nekk tiit ba nga xam ne sax ku jóge bitim réew ñëw sax gars yi tiit ne waru fi dugg yooyu. man nag mooy te bon obligation loolu mu dès à présent ma bàyyi lépp pour jox na laa leen di aare. Euh, pendant ce temps là euh, ci laa dem gisante ki nga xam ne mooy l'autorité du département le préfet du département de Rufisque mm-hmm. j'ai parlé avec lui et suitement le lendemain il nous a accompagné au début école la woon moo def Rufisque est le seul département boo xam ne pendant Covid bi yëpp gisuñu benn kenn ku am feebar xel ku nekk si mbedd bi d'accord c'est-à-dire danga seetlu ne que euh, jamonoy Covid bi bi nit ñi di nekk di di nëbbutoog yu demee noonu yow da nga jàpp ne que ñii nekk ci mbedd mi aussi donc yoon la ñu bàyyi ñu bàyyi leen xel c'est-à-dire sa sensibilité foofu foofu foofu foofu la orienté wu. alors bi nga demee gis ak le préfet comment est que ça s'est passé exemple. bon non seulement yoon la mais aussi yoon la pour man ma aar sama njaboot. comme je dis souvent et sa sont de membre entiers de ma famille. Ah. waaye dañoo dañoo ci famille bi la donc ku ne li ngay aaree sa njaboot il mm-hmm. fallait aussi ma aar sama njaboot mm-hmm. donc noonu la mais ba ma demee gis préfet bi neewul dara bon déjà man ak ñoom si mbedd bi xamante nañ bu baax amul dara loo xam ne metti na maintenant c'était nañ am local bu ñu ne ak tamit dispositif maintenant le préfet déjà présent utal ñu benn école bu ñu ne woon au mm-hmm. début mettre en rapport avec la police leen même tuñ noonu dem bon amul benn difficulté ensemble pendant bon ñun ñëpp ñoo nekkandoo après école euh, di waaja tëj ñu euh, ñu jóge école boobu demaatoon beneen école. Mhm. Euh, benn jardin. école tam tijjaat dans après sur le sang ba mu amee après nag man j'ai préféré continuité am. Mhm. au lieu d'arrêt puisque c'était un rêve de toute façon tout retard bëggoon naa ko def. Mhm. ab si la ko kunne maintenant dans une maison maison boo xam ne dafa bokk si kër yi nga xam ne waa terre bi dañ ko jëloon fay fay fay seen waa fay ñi ko amul woon mur amul woon dara maintenant préfet bi ñuy xool di xool ba foofu mu jëkk jéem am na fu ma gis fee naa dem xool ndax neex na ma ma dem xool ko man ko si fi mun nañ fi ne après ça lañ dem aménager ko Euh, di góorgóorlu ndànk-ndànk ba mun fa nekk tey jii. d'accord est est-ce que du am problème ci wàllu prise en charge bi c'est-à-dire ñoo nga xamee ne que leen dajale ci benn kër seen xel neexul war chaque jour man moom laay moom laay mettre à l'avance quoi ñoo xamee ne seen xel neexul nga tëj leen ci benn kër wala boog tëj leen ci benn kër est-ce que yaa ngi bàyyi xel ci enjeux yi ci nekk exemple koo xamee ne dafa am trouble mbëkk miir wala boo xam ne koo xamee dafa am am am am trouble ñëw dóor moroomam wala ju demee noonu naka def ba ba responsabilité boobu déjà parce que nekkuloo agent de santé mhm. nekkuloo aussi koo xamee ne jaar nga ci école yi ñuy formé ay maam les travailleurs sociaux mhm. naka lay naka lay demee est yaay bàyyi xel ci enjeux yooyu noonu yëpp d'ailleurs pourtant enjeux yooyu a a hmm. comme je dis souvent beaucoup de gens dañuy passe ñoom seen sécurité dañuy fàtte ñoom seen i sécurité tey euh, xoolal si dëkk bi par exemple koo gis si mbedd ku nekkee day dóore ku mu dóor si mbedd sama gaay gi dañ ko sol dóor ko dóor yu xoola c'est nga toog benn weer te doo dégg kenn mu ngi fanoon fanaan ci mbedd bi oto jaar na si kawam. c'est rare nga toog gis ci mbel bi si ñoom bon génn même ci rue Dakar koo xam ne arom yaa ngi feeñ ça ne choque absolument personne. koo xam ne toog na ay weer wala ëpp na sanguwul watuwul deful dara. Mm-hmm. nit ñi dañ koy romb ça ne mm-hmm. gis nga jàngoro yooyu rek lan nax lan la ko mën a jural. en en en dehors de ça euh, d'habitude les gens parlent dañuy gën a wax ci seen violence. Ils sont violents, ils sont violents, ils sont violents. Certes, parmi eux, a y a certains qui sont violents. Mhm. mais la majeure partie dañu nekk sur la défensive moo koy indi à travers Dello c'est juste euh, surtout aussi pour montrer askan bi comme je souvent li si ëpp solo c'est la sensibilisation mhm. te pour sensibiliser askan bi il faut que nga wan leen dañ koy mën a gis mhm. il faut que nga montre leen montre aussi aux familles yi nga xam ne dañ ko am seen kër yi que vivre avec ñoom amul weer laa dëkk plus de 17 pensionnaires koo xam ne kenn kenn bokkul sa morom dara ñeneen ñi police lañ jógee ñu ñu jox ma ko ñeneen ñu ngi doon sama ñeneen naan dañoo euh, violent wala violent ñu ñaata weer. te te te amu mosoo am cas exemple ku tëb dóor kenn foofu wala mu mu mu gaañ boppam. xam nga euh, comment dirais-je bon comme képp kuy mënti gis. Hmm. koy soog indi à l'instant T y a ce la phase de la mise en confiance qui est très très important hmm. beneen bi mooy que ni ñu bëri ñuy juwaale. xol ak xel bokkuñu. Mhm. tey ñun ñi yëpp des fois dañuy xel dañuy yëngatu. Mhm. des fois mën na njëkk mere kenn mais si kër gi am na ku ñu rës. Ah. wala mën na yoo xam des sax nga déglu benn musique sax sa xol dooy maam li nga seddaat nga bàyyi. Mhm. ñoom comme ñun lañu xol lañu yor ko ñun ñëpp. en plus seen xol moo gën a pur ils sont tous adorables. seulement il faut nga am un approche. man je souvent euh, peut-être pour l'instant suñu dëkk bi l'approche qu'on a de la santé pour man man sama bu baax bi déjà dañ dañ jël lépp fokk une approche médicalisée. waaw alors que ces la là il y a des gens comme leur handicap mënuñ mënul faju mënul wér. Hmm. et ces gens là ont besoin d'être socialisés. Hmm. bon j'utilise des fois nit su mënee jël leneen sax loo xam ne du doomu aadama. Hmm. mën a nekk ak moom. ba ko oo muy ñëw mën ko kooku maanaam xam fu muy tëdd ak leen lu muy def. ma ma sama doomu aadama bi xam ne euh, am am na xel. donc à à travers Delossi ce qu'on fait ce qu'on appelle la socialisation avant toute chose. maanaam lan nit ki nga xam ne xëy na d'abord ma préciser à Delossi euh, tout est gratuit. Mm-hmm. on ne prend duñ nangu kenn jox ñu doomam. képp ku fa nekk rek ci mbedd bi on prend parmi les parmi ces la couche la plus vulnérable ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbedd bi gars yi par exemple dañu leen ce les errants. ce qu'on appelle les mm-hmm. euh, enfants les soit le nombre on prend. lu mu lu mu toll on prend. mais dund gi naka lay demee exemple tey yow boo leen fa yoree nan nga leen di dundalee pour éviter ñu génn ci mbedd bi di di di kii puisque yaa ngi wax ne que voilà nooy waxtaanee ak ñoom ba ñuy mën di la déglu di la déggal ak yu demee noonu parce que yaa wax sànq ne que benn phase bu am importance moom mooy euh, la la phase de la mise en confiance xaw nan ban mhm. terme nga mhm. utile sa dinañ def ba mu wóolu la parce que wax nga aussi benn mhm. terme bu am importance biir wax ji muy alors def en sorte ba ñoo ñoom ñi ñuy wax dañu violent dañoo violent su bëri mhm. ça c'est pas qu'ils sont violents mais en fait dañu ñàkk confiance ci ñu ñu ci mhm. ñu ñi ñi la la plupart ñi leen di kii nooy def ba dundal leen ak di di communiquer ñoom ñu lay dëggal waaw dundal bi waaw non dundal bi bon comme je dis souvent déjà à delloo si euh, xaw ma suba nag lii xew mais personne ne nous verra ñu de lancer un appel d'aide vous venez nous aider ou un appel de don ñun ce qu'on veut Sénégal la ñu wax euh, nit ñi heure bu ñu lay yërëmee Euh, par exemple li ngay def maanaam li ngay def wala ñoom duñu leen nawloo. Mhm. alors que léegi ñi am la feebaru xel nit ñi dañu leen war a nawloo ay doomu adama ay part entière lañ. Oh. Mhm. donc ce qu'on fait là-bas. beaucoup de gens dañu may inter rapport là tu dois faire ça tu dois lii tu lii mais li ñuy xeex mooy fexe gaa yi jox na seen axa ak seen yeleef et quand tu demandes axa ak yeleef àndul rythme on ne commande pas. on mhm. n'est pas là pour demander venez nous et cetera. Euh, si côté li ma waxoon mooy que ni man amul benn jàpp naa ni euh, gënuma kenn kenn hmm. euh, gënuma kenn au compte njëba ma taalibe yi ni ñuy def ba dund mën naa mën naa ko def dundal sama njaboot hmm. su dem ba mu metti metti jël sama bool dug seg saara añ saara reer mën naa ko mais yàlla def na musuma àgg foofu noonu ñoom tam musuñu àgg foofu parce que dès euh, dès à présent on a l'autorité une fois de plus ma remercie l'autorité départementale le ah. préfet du département ki nga xam ne depuis le début jusqu'à présent il mm-hmm. mais en dehors de ça di préfet di remercier aussi sama kër tous les jours sama kër sama kër eh, añ dafay jóge depuis boobu amul jour boo xam ne maanaam yow sa kër sa jabar moom mooy toggaale chaque jour chaque jour dafay jóge dafay ñëw au, nombre de combien actuellement la euh, actuellement le nombre varie à tout moment à mm-hmm. l'instant où am na kenn koo xam ne actuellement interne naa ko à mm-hmm. am naa keneen koo xam ne actuellement kenn ko jigéen koo xam ne dafa xaw a jàmm manque bon sama kër la fanaan dima d'accord loolu laa bëggoon a laaj ndax da leen di jël tey ji mm-hmm. dugal leen ci kër jàppale leen sang leen ba ñu set assister leen mentalement ci ngay yem wala da ngay collaborer peut-être ak yenn hôpitaux yi xool si naka lañ leen mën a génne xëy na situation yi ñu nekk ok merci comme. xam nga ma de loolu sama question la woon. maanaam taw loolu comme sànq ni ma wax rek euh, ce sont des personnes à part entière. Hmm. donc dimension yëpp la ñuy prendre en charge. Hmm. Euh, maanaam euh, si le volet dafa am ñoo xam ne il faut nga xam ne am na seen volet psychiatrique am yoo xam ne mooy feebar yi ñu mën a dal ñun ñii ñëpp. Hmm. maintenant su nekkee par exemple moo comme njaboot gi. même un peu partout même rien que démb à képp koo xam ne par exemple yaa ngi si mbedd bi mhm. suñu la gisee par exemple nit su ma intervenir kii kat dafa mel ni ku feebar mhm. sur le sang on vient suñu ñëwee avant toute chose on t'amène à l'hôpital mhm. avec une fois de plus di remercier le préfet du département moom moo mais moo ñu mettre en relation avec euh, le chef district du département docteur Thiam une fois à on n'achète pas de ticket de consultation mm -hmm. sinon le reste yëpp d'habitude on l'achetait mais depuis quelque temps les choses commencent vraiment à bouger mm. avec le service social de l'hôpital Guédiawaye euh, ma leen di remercier Pape Samba je pense oui oui di leen remercier de passage parce que mm. semaine passée dañu ñëwoon en séminaire euh, à Thiès mm-hmm. avec la vision de la santé mentale mm-hmm. man ak ñeneen ñi di yëngu ci acteur communautaire te pourtant man artiste j'ai pas ce problème là. te actuellement artiste nga tilim noo mënti mel si mbedd bi quand mën nañ la jël ñu lay yóbbu hôpital géej dañu lay jël. Mhm. maintenant foofu lañu lay yóbbu gars yi dañu lay consulter suñu la xoolee suñu kii ça va. Mhm. Euh, bindal ay médicaments mu yóbbu la sant ba. benn question dama mhm. leen arrivé ñi ngeen jël ñi am ci ñoo xam ne dañ dem ba wér. da ngeen delloo leen seen famille. am naa ko fi instant yii ah, yow <laughs> am am am naa ko xëy instant yi nii. am ah, na ah. peut-être euh, bon. très bien su ma tamit suñu paraan vidéo bi man am naa ko xam ne instant yi xëy na. xëy dem liggéey xëy na am naa dem foto kenn ku jigéen. wér na ba xëy liggéey xëy na dem dem si démb am naa ku jigéen ko xam ne moom ma seet si démb ngoon. Mm-hmm. ba di ma attaayal. soo ko gisoon yaa sala même pas cinq mois en arrière mm-hmm. Mm-hmm. on avait dû récupérer ces enfants pour les confier à une maison de récupération mm. oh. non Pathé lii il faut il faut nga ñëwaat si euh, euh, certainement peut-être mu andi euh, kooku ñu ñu ñu ñu yaatal ak moom aussi malheureusement tey xam nga ak temps c'est c'est ah, assez court mm. mm-hmm. mais de toute façon merci beaucoup pour la disponibilité je pense que jeudi bële laa waxoon ne que donc dama koy dama koy dalal mais malheureusement donc mu amoon ay contraintes tey bi ma ko waxee démb rek automatiquement il m'a dit qu'il va venir merci beaucoup et puis il faut dire que lii in n'a rien à voir ak sa formation ah moom je pense dem na ba waroon mën a nekk affaire de déclarant en douane ak yu demee mhm. noonu mu jël lépp daal koy tëxañ teg ko fële donc nekk ci wàllu yi c'est une personne très sociale que j'ai connue ça peut faire à xam nga merci beaucoup ñu baal nga tàggatoo ak guys en tout cas merci beaucoup une fois de plus Pathé merci beaucoup à yéen ñi aussi une fois de plus di profité di leen lancer un appel rek comme je dis souvent sama euh, njaboot ku leen bëgg aider ku bëgg aider les malades euh, mentaux <laughs> dara yomb na trop mm-hmm. il suffit uniquement a monde di massawu aussi euh, famille mm-hmm. famille yi nga xam ne dañ ko am seen kër mm-hmm. xam ne c'est vraiment difficile tellement difficile aussi beneen su occasion amee mm. j'aurais bien aimé pour que ñu mën a wax carrément si la procédure nooy ba yow ak aussi tamit jafe-jafe yi pareil di jot parce que je me que beaucoup de gens même baax a baax di wax ne donc essayons de prendre un peu exemple ci genre yu ni mm. dire nañ jéem def en ba yow sa dëkk fi nga ne maanaam bul xeeb dara xoolal observer rek nga xam ne am na ay nécessité par rapport ak yow sa environnement lii nii. Mm. jëm prenez des actes yoo nga xam ne mm. c'est citoyen. essayez donc d'être utile d'être important par rapport ak seen dëkkuwaay. il n'est pas obligatoire nga am ay diplômes pour e, e, être important. important il est pas obligatoire que nga nekk nit koo xam ne nekk ci plateau plateau télévision wala nga def euh, ay ay yu mag mais am na ay xamee ne c'est sociétal c'est civique et puis c'est citoyen mm-hmm. essayez de le faire ci seen ay dëkkuwaay et certainement vous serez